Samba Dieye démb nag moom jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi ak ki koy jàppale ci wàll woowu di Famara Ibrahima see mi jiite association des clients et sociétaires des institutions financières liñ bëgg rek mooy kon euh, tuuma ak liñ ko tekk ci métit ñu daal di koy delloo ak xam ba tax na sax ab pétition daañu ko signé ndax jàpp na ni euh, CBAO di banque bi nga xamante ni moo ko jural boobee loraange am na ay rapport d'expertise yuñ def ci wàllu koppar li mu wane mooy kon euh, danoo jël alalam te dañ ko ko war a ñu déglu ko moom Camara Ibrahima Cissé ci micro Fatimata Touré ak Ababacar Camara. la cour d'appel a commis un autre cabinet pour faire le compte une énième fois des relation financières. tey tamit cour d'appel bi nga xam ne moo war a juger mu jël expert bu cabinet bu indépendant ne ko dama bëgg nga xoolal ma mbirum Bocar Samba Dièye ak CBAO nan la tëddee. expert bi def liggéeyam génne conclusion yi xamal leen ni set milliards yi CBAO wax yooyu la ko Bocar Samba Dièye amel ba mu jël ay këram ak biens jaay ko non seulement da ko war a delloo ay këram ak ay biens mais li ci li ci gën a doy waar mooy CBAO sax expert bi gis na ni moom moo amel Bocar sàmba Dièye lu toll si huit cent millions te da ko ko war a fay. waa expert boo xam ne Bocar jëlu ko tribunal la ko jël mu génnee conclusion yooyu suñuy avocat dugal pour ñu homologué ko CBAO encore bëgg bañaat mais dafa mel ni CBAO ci boppam bëggul ku xool compte bi nan la tëddee. doyen muy lu am solo ñu waxaat rek ci mbiram acteurs culturels yi ñoom nag bëgg nañoo amal euh, toogaan ñaxtu ca place de la nation di place de l'obélisque euh, alxames bii ñu mal bu ñetti waxtu jotee liñ bëgg rek mooy li ñu taralaat mesures yi ba ñoo amal seen yëngu-yëngu ñoom artistes yi ñu bàyyi leen ñu delluwaat ca lu ni mel soxna Ngone Ndour mi leen jiite moom moo ko xamle daañu ci dellusiwaat ca nam gën a yaatu dégg ngeen sànq gouverneur bi li mu wax ci RFM xamante ñoom ñoo nekkoon ci SAEMS ñoom it tey du duñ dem ci daara jàngale ji li ko waral mooy ndàmpaay yi neen leen a fay bin corrigé BFM beeg bag bi si Ndakaaru ba léegi gisuñ ko tulul nag nguur gi moom moo ko waroon a def Saloum Ndiaye moom mooy secrétaire général SAEMS fii ci Ndakaaru Pape Fana ñi nga ak Pape Sangone Mbaye ñoom ñoo taata ay kàddoom bi jàngalekat yu Dakar yi yi nga xam ne tey ñoom ñoo bokk ci IA ndakaar IA Pikine Guédiawaye ak IA Rufisque di ñaxtu tey mooy ñax moo ngi lié ak euh, question yi ñuy waxee indemnité yi mooy euh, bu ñu defee BFEM ba pare def bac ba pare payoor gi e, e, état bi war a jox jàngalekat yi te jàng e, état bi ci boppam dafa signé woon ak euh, enseignants yi ne le trente novembre de chaque année fu mu jotatee dana fekk lépp lu nga xam ne mooy question paiement bac BFEM dañ koy fàtte. te ñun constaté nañ ne tey ñu ngi si la 14 décembre te ba léegi question boobu ba léegi kenn lienteegu ko te ñu ngi doon jonk jokkoon jonkoon jonkoonteel ak euh, li ñuy wax yaa Dakar yaa Pikine Guédiawaye ak yaa Rufisque mais amul dara lu leer loo xam ne génn na ci waxtaan yooyu boo demee ñu ne la trésor ñoom ñooy lijjanti loolu nga dem ñu ne la finance ainsi de suite te ñun dañoo tollutul ci situation boobu parce que am nañ question yi nga xam ne moo ñu gën a ñor moo ñu gën a soxal mooy question yi nga xam ne mooy protocole d'accord ba ñu signé woon ak gouvernement bi nga xam ne ba léegi respecté guñ ko mburu it euh, am na ñoo xamante ne ay boulanger lan ñoom euh, dañoo bëgg amal euh, grève ñaari fan di regroupement bi liin bëgg rek mooy ministre bi ñu daal di tekki ndomba tànk wante tamit wàññi njëgu ton farine bi ndax dañoo jàpp ni dafa cher lool ci atum 2018 ngóor gi moom ne woon dina wàññi rek saagu farine bi jëlee ko kon ci 13200 yóbbu ko ci di 17000 ñuy yokkute goo xamante daal du yoon moo tax na kon ñoom ñu nar a banque seen loxo wante nag am na ci ay boulanger yoo xamante ne ànduñ ci boobee eh, dogal kon mu mel ni eh, waroo am na seen biir ñoom eh, defarkatu mbulu yi ñu jeexaloo ko ak coow li dox euh, ci diggante kilifa gin dénk ministère collectivité territoriale di Omar Gueye ak ñenn ci ay élus rawatina nekk ci juróomi gox goxaat yi muy Ndakaaru Pikine Guédiawaye Rufisque ak Thiès ñu ne kon dañuy raaf rek yooyee gox goxaat ñu ci bëri nag àndoon ci wante Abdoulaye Diouf Sarr moom nekk maire bu Yoff ànd na ci lu nu mel ndax jàpp na ne réforme bi ama am solo la démb nag lékkati kàddu yooyu ndax jàpp na ni ngëneel njiitu réew mi def dara loo xamante ni kon ndakaaroo ñu déglu ko ci micro Pape Fana ñi nga ak Pape Sangone Mbaye le de la décentralisation dafa apporter benn révolution ci gouvernance territoriale révolution bi mooy la communalisation intégrale révolution bi mooy euh, un niveau de euh, département comme étant un niveau de coordination intermédiaire avec euh, suppression ou région en tant que collectivité euh, territoriale mais bàyyi fa région en tant qu'instance administrative de décision avec les gouverneu loolu mooy wane ne effectivement harmonisation au niveau national boobu dafa war bon nag bu ñu waxee jëmee dakaar man en tant que effectivement maire la commune bi xamante ne mën naa wax ne si commune yu gën a ràññeekuloo si dakaar li ma mën a wax rek mooy que ne bu ñu xool des questions de forme tour donc du loolu moo ëpp solo lu ëpp solo mooy lan lay def ak population yi lan moo si seen njëriñ aspect fonds yooyu yaakaar naa ne moom la ñu war a aborder adressé ko correctement bañ a respect rek sur des éléments superficiels d'appellation bu fekkente ne li ñuy indi dafa nekk loo xamante ne moo gën si population wu Dakar yi mais ñun loolu la ñuy jàpp te yaakaar naa ne bitim réew ñu dem ci république démocratique bu Congo njiit la di Félix Tshisekedi démb daje na ak Sénat ba rek ngir waxtaanee lu jëm ci bilaam wante moom daal kontaanul ci la mu fa def. kontaanu ci kon Serigne wax nga ko moom Félix nga xam te ni moo di Tshisekedi di njiitu réew bu Congo gannaaw ba muy jàkkaarloo nga xam te ni moo di euh, ñaari chambre yu congrès yi la mu jàpp rek nee na kon bilan mboob lay moom euh, neex na naxari na maanaam ñaar yooyu la boole di ab discours nag boo xam te ni ci seen kanam Diouf ci ay leeral. lëkkaloo maanaam jokkalante bi nga xamante ni moom la amaloon ak ki nga xam ne moom la wutu ci boppu nguur gi taxul mu mën a yeggale mëbët bi nga xamante ni moom la amoon ci république démocratique bu Congo ki ko xamle di Félix Tshisekedi mi di président réew moomu moom sax nee na lépp lu nga xamante ni moo di woon sacrifice wala sax li nga xam ne moom la waroon def def na ko wante taxul li nga xamante ni moom la yaakaaroon ci lëkkaloo boobu ñu mën koo gis ba tax moom dafa yaakaar ne daal dafa war a dakkal li nga xamante ni moo di jëflante boobu mu amaloon ak Joseph Kabila loolu mu ngi ko wax ci kanamu député yi ak sénateur yi nga xam ne ñoom la doon jàkkaarlool président Congo congolais bi yokk ci ne dafa war a taxawal beneen gouvernement boo xam ne nii dina mën a may réew mi mu suqaliku ci suqaliku boo xam ne dina jaar ci yoon ba tax ñenn ñi nga xam ne jege nañ nguur gi nee nañ ki nga xam ne moo di premier ministre bi nga xam ne moom moo nekkoon ci réew mi te jege woon lool Joseph Kabila dina ñàkk postam bi nga xamante ni moom la jiite woon lu ci mënti xew ñi nga xam ne moom la doon waxal di député yeeg sénateur yi ñoom discours bi rafetlu nañ ko lool parce que nag yàkkamti woon nañ lii nga xamante ni moom mooy coalition boobu wala alliance boobu mu jeex ci li nga xamante ni moo di réew mi ndaxte amut benn solo boo xam ne ni gis nañ ko ci kenn ci opposant yi sax di Cheru Okindi moom dafa ne li nga xamante ni moo di lëkkaloo bi lu waroon a jeex la te nag fi mu nekk nii bu nu diggati askan wi loo xam ne nii dootuñu ko mën a def fi mu nekk moom li mu gis moo di ñu xool li nga xamante ni moo di ñëw te fexe am ay jéego yu am solo yoo xam ne li dinañ ko teg bu dee bëgg nañu bañ a rëccu li nga xamante ni moom mooy dakkal bi ñu amal ci coalition bi nga xam ne moom moo fi nekkoon kenn koo xam ne ni tam jege na Kabila moom rek moo yëkkati kàddoom ci li nga xamante ni moo di dakkal gi ñu dakkal jëflante bi diggante Kabila ak ci sikki di moom Loumeya Douma léegi nee na président bi mënul nekk koo xam ne nii rek day ñaxtu dafa war a jëf ñu gis ndaxte ñaxtu yi nga xam ne mu ngi koy ñaxtu soof na leen te sonal na leen lool. Babacar jërëjëf euh, ñu dem ca Washington foofee rek ñoom kon ni nga xam ñu ngi ay attaques yi nga xam te ne ñu ngi koy am euh, ci wàllu euh, cyber attaque maanaam di ci wàllu internet beeg yooyu ñoom États-Unis jël nañ ko très au sérieux ñu ngi koy saytu di ko gas ndax la ñu jàpp rek ne nañu daam ay gouvernement goo xam te ni feneen la bàyyeekoo ñëw saax ci seen réew ngir juddu leen leeral li ñu ànd ceeg Abib Faye Washington ci li ñeel wàllum cyber attaque ñoom nga xamante nit booba léegi ñu ngi leen di viser ñoom ñoo ñi tey jël nañ ko bu baax au li leen di ay entreprise yoo xamante ne gouvernement yoo xamante ne nekkuñu ci boobu léegi dëkk ñoom ci seen boppam it gis nañ ne booba léegi mbir yi mi ngi gën di law ci boobu léegi dëkk agence américaine gi nga xam ne moom lañ dénk wàllum cybercriminalité ak lépp li nga xamante ne kaaraangeel ak ci wàllum jumtuwaay lëkkaloo ci ak ministère bi ñu dénk wàllum kaaraangeek biir réew ma ñoom waxee nañ ay consignes yoo xamante ne mbir mi ca daar daar faw rek ñu mën a xam fan la féete ba tax na itam ci ay directives yooyu tamit joxe nañ ko waaye la nga xamante nit moom moo xew bu ñu sukkandikoo ci groupe sécurité informatique FIRES ñoom ci seen boppam gis nañ ni ay victimes amoon na fa ca ayu bés ga nga xamante nit génn nañ ko gouvernement yi entreprise yi ci ñel wàllum tamit ëttuk xeltukaay yi li nga xamante ni te moo di ci wàllum technologie bi ak ci wàllum énergie yooyu rek la ñu ciblé ca diwaanu Amérique du Nord la ca Tugal ak ca asi ba ca Moyen-Orient États-Unis ñoom ci seen bopp département ba nga xamante ne moo yor wàllum koom gi ak wàllum jënd mbéeg njaay mi ci li ñeel wàllum agence fédérale yoo xamante nit bari nañ yooyee tamit laal na leen li nga xam ne moo di pirate bi bu ñu sukkandikoo ci yenn ci ay këri taskati xibaar ba tax na it pirate yooyee laal na système informatique yu bëri ci ay entité ba tax itam am na sax ay mise à jour yoo xam ne ci logiciel yu doon saytu lépp li nga xam ne ñeel na wàllum informatique te it entreprise di SolarWinds mën na koy jëfandikoo te it bokk na ci ay junne entreprise yoo xamante ni laal na leen ci àddina wërngal këpp ba tax na it ab campagne ibbi nañu ko ci li ñel wàllum printemps 2020 euh, gile waaye ba léegi France daan ni gannaaw benn article goo xamante nit agence bi ñoom publier nañu ko yileeg di ay contenu yoo xamante nit wàllum pirate la ngir rek ñu xool ana wàllum luubal naan rek lañu koy defee waaye ba léegi itam xamaguñu benn yoon ana ñan rek ñoom ñoo jëfee ñaawteef yi le Habib jërëjëf kon ñu wax ci wàllu vaccin bi nga xam te ni gis nañ ko mu di piqûre bi ci mbas mi. Euh, nit ku njëkk nag ñu pikiir ca États-Unis ab euh, jigéen la mu di euh, aide benn soignante maanaam ab docteur moom la ñu njëkk kon piqûre foofu lay dëkk boobee nga xam ni nag États-Unis jàppaleen ni ci mbas mi moo ëppale li mu doomu aadama yu fa faatu campagne bi door na kon ci yenn ci hôpitaux yi dose yu njëkk yi nag kon ñu jël bi nga xam te ni moo di Pfizer ak BioNTech la ñu boole daal di ko koy piqûre États-Unis boobee fa la ñuy jeexalee sax nga xam te ni nee na nag dana daal di teg ay daan lii di gouvernement euh, Turquie euh, ci wàllu jënd yu mu jënd ay gànnaay euh, gànnaay bi nag di SSB kon ca Ankara daal di koy jënd mu di système défense boo xamante ni ci wàllu jaww ji la di S-400 mu jëndee ko ci Russie ki xam ne li ni mel rek mooy ki jiite diplomatie américaine bi di Mike Pompeo fii la ñu yemale xibaaru biti réew yi Chérif ñu bàyyi leen mbokk yi ak soxna Fatou Dieng mooy ak yéen seen émission Fatou. jërëjëf euh, Chérif Dia ak euh, Mamadou Fall ci ñaareelu euh, pàcc bi xabaar yi ci wolof sunu